mbokk yi ba tey li euh, leen ko waxee ñu ngi leen di toppal ñi nga xamante ne ay bailleur lañ ci làmb kenn du ko tudd te doo tudd Assane Ndiaye borom Bawol production tey ñu ñëw fekk ko fii nga xamante ni dajab làmb la tey muy euh, maanaam ñaari président yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon kenn ki di président Alioune Sarr ak euh, Bira Sène tey ñu doon weccante li nga xamante ne mooy leng bi en tant que promoteur ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. waaw ah, jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu. képp ko koo xam ne yaa ngi seetaan euh, Wassare Lamb di nuyu waa diaspora bi yëpp di nuyu waa internet bi donc tey dañuy dañu am mbégte lool am kontante di féliciter suñu papa Alioune di féliciter suñu ministre sport Matar Ba lépp li ñu doon doyee li ñu doon yaakaar ci ñoom def nañ ko ba mat sëkk donc dañ leen di ñaanal yàlla jàppale leen yàlla taxaw leen di encourager nag. di ko yenn muy mise Bira Sène lii ko Sénégal defal yombut ay centaine de personnes ñoo fi ne ñu jël CNG bi ne ko yow la kon moom la Sénégal sas na ko donc yàlla na ko yàlla taxawu yàlla jàppale ko ba mu àggale moom it ci jàmm jox keneen ñun nag lii suñu warugar mooy jàppale ko uuf ko wan ko yoon bi lépp loo xam ne day yàq ñu taxaw défendre ko lépp loo xamante ne bii day baax ñëw indi ko si biir làmb ji lépp loo xam ne suñ ko defee làmb ji baax si kàttanu yàlla pare nañ pour def ko ndax ministre bi nag xeebu ñu waa làmb ñu jox nañ ñu cër ci làmb ji suñ demee ba boole ñu si bureau bi kon dañ ci sant yàlla bu baax lépp loo xam ne sénégalais yi ñu ngi koy jooy ci dinañ leen diglu may leen nopp bu ñu ko waxee ñu ñëw wax ko ci CNG bi pour làmb jëm kanam. en tant que promoteur lan nga yaakaar mooy jafe-jafe làmb numéro un loo xamante ni moom ku ci dimbali képp kuy promoteur làmb ba ci kii waaju dugg si sax moom ñëpp nga ko defal. mooy sponsor. sponsor mooy premier làmb. su am promoteur amee làmb am am sponsor day ñime fi mu jëm. xam nga boo jàngee ba mën a tari. Hmm. ki lay diglu jàng. Hmm. pour ngeen dem day yomb mm-hmm. mais booy tari di tari ci koo xamul ku mënul du ngeen dem boo amee sponsor da ngay sawar ci li ngay def ndax di nga ko bëgg di nga ko man comme ran nga mm-hmm. suñ amee loolu état bi jàpp ci bailleurs yi nga xam ne ñooy nekk ay sponsor ci dëkk bi mm-hmm. ñu yabal leen ñu ñëw ci làmb ji jàpp ci parce que sport làmb ji bu doxee Sénégal côté am na benn côté boo xam ne day dox à cent pour cent ndaw yi ci nekk bëri tey jii nii yaa ngi gis ñu xëy xëy rek ñu naan ay ñaata doomu aadama ay jeunes ñoo dem si mbëkk mi ñoo décédé ma leen di masaw loolu lépp lu ko war a mooy jom fulla fayda bëgg a tekki gisoo noo def day metti ñu ngi leen di masaw di leen wax leen ñu toog xaar ndaw dara jomb ko ñu ngi leen di masaw bu baax a baax lu metti la nag ndax tey jii bëgg a jox sa yaay bëgg a jox sa papa amoo ko dafa metti da ngay lu sa xel nekk rek pour jox ko am ko ci loolu ngay dox donc nan leen xaar ñu nëggandiku état bi jàpp ci làmb ji jeunes yi mën a ñi mën a am bëre ñëw bëre ñu muntu bëre promoteurs yi jël leen ñu liggéey mm-hmm. loolu daal gis naa ko. am na solo waaw jërëjëf jaajëf maa ngi bëgg ñëpp.